Euh, parce que dafa am euh, vidéo sécurité bu ñu defoon muy bii ci suuf moom lañ mujjee def si vidéo sécurité chaîne YouTube yi wala compte Google yi ñu tuddee ko 100 pour cent sécurité compte Google et YouTube maanaam boo bëggee sa compte Google sa compte YouTube kenn du ko mën a pirater nan nga war a def waaw loo xam day assuré moom à 100 pour cent comprendre nga euh, xam naa lien ak playlist bii nga xam ne vidéo sécurité rek lañ ci defoon ak ay conseil sécurité ci wàllum compte yi dinañ ko def ci suuf vidéo bii boo seetaanee vidéo ba mu jeex. soo ñëwaatee ci description bi premier lien bi soo ko cliquer dina la yóbbu ci playlist bi bu dee nag youtubeur nga wala nga nekk ci internet rek yor nga compte Google su dee vidéo yi mu soo ko seetaan dama lay demande nga jël sa temps que seetaan leen ba am jeex parce que lan moo tax mu am solo mooy bu dee vidéo bu mujj bi pour nan ngay def kenn du la mën a pirate la comprendre nga wala ku la pirate tam yow da ngay koy régler sa bopp sans nga contacter Google moom la ñu wane fii. yi bu dee vidéo bi conseil la bu dee 1 bi vidéo backup la backup mooy maanaam nan nga mën a jële ay ay information yépp yi sa chaîne wala sa compte Google nga mën koo yi ci am solo créé yi nga capté ko denc ko en bu ñu la piratoon tey fan nga mën a jaar maanaam faci day faciliter nga récupérer waat sa compte comprendre nga voilà bii mooy bi ñu def ci sécurité compte Google bi ak conseil la ci ci wàllum sécurité tamit bii moom lañ ci avant bii bii lañ mujjee def avant bii mooy avant dernière vidéo moo nekk nii maanaam yi nga war a activer ci compte Google bi pour sa chaîne YouTube kenn du ko mën pirate wala pour nit pirate ko day jafe waaw loolu mooy li nga ni euh, mooy vidéo sécurité dañu defoon tey nag day ñëw ci adresse Gmail parce que ci vidéo bi dañoo waxoon da ngay compte bi nga mooy sa compte principal nga ciy liggéey léegi pour danga koy da nga koy denc maanaam da nga koy denc ut benn beneen compte boo xam ni compte maanaam euh, kii la rek boo xam ni fenêtre la rek quoi voilà waaw fenêtre la boo xamante ni da nga fay jaar na am accès sa compte nga xam ne tey tamit. compte boobu peut-être yow defoo fa dara soxla woo ko mën nga ko moom éliminer créé beneen defaat ko fenêtre continuer sa liggéey kenn du mën a yóbbu sa compte principal bi nga moom ngay liggéeyee loolu lañ wane ci vidéo bi waane nag euh, ñi nga xamante ni par exemple tey yor nañ euh, ñaari téléphone wala yor nañ téléphone ak ordinateur wala yor nañ ñaari ordinateur mën na yomb ci ñoom pour def ko parce que mën nañ jël benn appareil boo xamante ni benn appareil boo xamante ni duñ ci télécharger dara lépp lu ñu ci installé loolu noonu normal lay nekk duñ ci cliquer ay lien duñ ci dugg ci ay vidéo lien publicité yi ñu envoyé whatsapp ay facebook et cetera gañe nga fi xaalis dañuy maye fi xaalis dañuy nangam nangam yooyu nga xam ne maanaam moom ku utiliser sa xel tuuti war xam du dëgg mais ñu bëri malheureusement dañ ciy cliquer waaw ah, parce que bëgg xaalis bu ëpp mooy tax voilà gars yi xam nañ nit ñi ñoo bëgg xaalis parce que yooyu la ñuy jaar pour ndax nit ñi di leen envoyé ay lien pour ñu cliquer pour ñu mën a accès seen compte yi mën leen euh, mën ay virus pour mën leen pirater léegi nag su fekkee am nga appareil yoo xam ne mën nga isolé benn compte bi beneen bi nga créer beneen compte bi def ko ci beneen appareil li ma expliquer nag pour nga comprendre ko détail il faut nga seetaan vidéo bii waaw vidéo bi pour cent sécurité Google euh, et YouTube en wolof boo ko tàppee moom directement ci YouTube dina génn en attendant après nga jël sa temps seetaan yëpp voilà. léegi nag foofu dafa am inconvénient boo xam ne ndaw bu ñu lu ñu fa waxoon lu am inconvénient ki nga xam nag moom benn téléphone cote la yore. léegi mi ngi si YouTube bëgg na sécuriser compte bi lu muy def ma ne woon da ngay créer beneen compte Google def ko li nga xam mooy administrateur ci sa chaîne YouTube léegi sa compte principal nga déconnecté ko ci téléphone bi comprendre nga compte bi nga créé nga xam ne compte boo xam ne compte fictif la moom nga connecté ko ci téléphone bi bu dee da ngay utiliser application yu ñu craqué wala logiciel yu ci sa ordinateur bu dee tam benn ordinateur nga yor exact exemple su ko defee nag léegi bu ñu nit sa ordinateur wala sa téléphone su piraatee compte ba compte boobu compte vitrine la rek vitrine la voilà fenêtre la donc compte boobu ngay dindi ci téléphone bi réinitialiser sa téléphone wala nga installer antivirus man daal nga nettoyer sa téléphone comprendre nga créer beneen compte bu bees defar ko administrateur dem ci sa compte normal connecté ko ci téléphone bi dindi administrateur compte bu njëkk ba léegi nag xam nga boo amee sa compte principal booy liggéey nga déconnecté ko ci ordinateur bi wala ci téléphone bi da nga ci war di jot ay email parce que mooy sa compte principal ci nga monétiser war nga jot ay email AdSense ay email YouTube te mënoo ko di connecté ci téléphone benn téléphone nga yor vidéo bii ñuy def foofu lay duggee en jeu muy lan muy dañ lay wan léegi compte boobu nga xam ni moom mooy sa compte sa email bi nga xam ni sa chaîne YouTube ci la nekk mooy sa ci ngay monétiser wala moom may monétiser wu laal mooy sa sa chaîne bi ngay liggéey te bëggoo kenn pirate ko déconnecté nga ko ci téléphone bi nan ngay continuer yi ñu fay envoyé nga koy continuer ko jot ci compte bi nga yor nii comprendre nga compte bi nga créé muy compte vitrine da nga cee war jot ay email sinon email AdSense wala YouTube yu am solo mën nañ la ko envoyé fee doo ko yëg léegi da nga te da nga kaa war di yëg léegi nag loolu nan ngay def ba email yi di ñëw fii vidéo bi loolu lay wane maanaam nan ngay transférer ay email yu ñëw ci benn adresse email nga fexe YouTube bu envoyé ci par exemple tey sama benn email bu nekkee pape morlo arobase gmail point com te connecté wu ma si ma bëgg nag waaye email bu fa dugg ma yëg ko damay jël sama beneen email bu tudd par exemple tey pape lo arobase gmail comme ma ñëw ajouté ko pour ñu transférer email yi ci compte boobu loolu la ñuy wane tey voilà. compte bi nga xam ne compte bi euh, email xam ne amoo ci accès email yi ñu ciy envoyé nañ lañ la koy transféré ci email bi nga am accès voilà je crois c'est <laughs> voilà léegi nag ñu dem ci Gmail bi léegi bi mooy sama compte Gmail par exemple principal mi ngi nii bu ñu fii nga gis mi ngi nii boo xool yi nga Pape Mor Lo 1 arroba point com comprendre léegi par exemple beneen compte boo xamante ni moom euh, connecté wu si mais bëgg naa email bu fa dugg ma yëg ko léegi nan laay def. sama email bii laay copier comme email bii laay copier email bii nii moom la fii compte bi mooy compte bi nga xamante ni ci laa bëgg di jot email yi email yi nga xam ne daa concerné compte bi directement dafay dugg beneen compte bi nga xam ne connecté wu ma ci te dama bugg ma dara umb ma fa ci email yi ñu may envoyé parce que dafa am solo léegi nan laay fexe ba email yooyu di def copie copie foo boobu jotee email ñu copier ko benn indil ma fii tamit mooy ko voilà léegi damay copier sama adresse Gmail bii voilà. damaa jaar fii copier ko rek mais bu dee yow mun nga ko bind jarul copier mun nga dem tàppe ko directement voilà man pour mu gën a gaaw rek la léegi ma dem nag si sama adresse Gmail bi nga xam ne moom laa bëgg a déconnecté ci ci ci machine bi léegi ma def ko nag euh, euh, kii ñuy transféré léegi ma dem ci email boobu léegi compte bi mooy compte bi nga xamante ni dama cee bëgg a déconnecté bëggatuma koo connecté ci machine bi waaye nag damaa bëgg email bu fi dugg ma yëg ko léegi nan laay def. dangay ñëw fii roue bi ci kaw fii muy paramètre roue dentée moom foo gis tudd paramètre lay tekki nga ñëw nga cliquer ko soo ko cliquer réglage basique yi la lay indil quoi mais soxlawoo foofu yaa ngi soxla voir tous les paramètres parce que dalaa indil rek paramètre détails yi nit ñi gën a soxla pour jot message yeeg yooyu mais man dama bëgg dem paramètres internes yi nga cliquer fii voir tous les paramètres nga cliquer soo cliquer voir tous les paramètres bu la mooy paramètre Gmail bi ci boppam voilà am na yoo ci xam nag bul coché parce que am na yooyu boo ci coché mën ko perturber sa message dem doon ñëwee parce que dafa xaw technique tuuti voilà nañ dem rek ci liñ ci intéressé muy li may wane. léegi nga ñëw fii transfert et pop map imap transfert et pop imap fi ngay ñëw transfert et pop imap voilà nga cliqué ko soo ko cliqué bu fi laal dara tamit waaw fii <laughs> parce que yëpp réglage par défaut la bu fi laal dara li ngay def mooy da ngay ñëw fii. ajouter une adresse de transfert fii kese moo ñu concerné muy partie bi transfert kese moo ñu concerné ajouter une adresse de transfert nga cliquer ko soo cliquer mu ne la dugalal adresse transfert bi nga bëgg a dugal ban email nga bëgg ñu lay envoyer message yi ñëw fii léegi ñu coller fii coller naa email bi ma copié woon sànq soo dee sa email da nga ko jàpp man su ma neexoon ma tàppe fee rek Pape Mor Lo arobase gmail mun nga ko tàppe tam bu la neexee boo ko defee ba pare nga ñëw fi nga def suivant. soo defee suivant ñi nga def nañu benn boîte dialogue li ñu demande maanaam euh, euh, autorisation lu may def damay def continuer voilà voilà defee continuer boîte dialogue bu ñëwee nga def continuer bu ñëwul nga def bu fekkee bii la génère directement dafa la boîte dialogue nga def ok bu dee ñaari def tam même nga def continuer nga def ok voilà gis nga léegi envoyé nañ li nga xamante ni moom mooy email bi waaye nag daf ñuy daf ñuy daf il xam affaire sécurité moo tax duñ bëgg rek nga dugal fi email jàmbur ñu koy envoyé message moo tax ji nga defal nañu valider Pape Mor Lo 1 arobase gmail point com am ajouté nañ ko fii confirmé léegi mi fii la ñuy demande ñu valider mi ngi nii valider Pape Mor Lo 1 arobase gmail point de confirmation code de confirmation mooy lan def naan ñu sa sa boîte gmail bi nga xamante ni moom mooy Pape Mor Lo 1 arobase gmail point com bii nii envoyé na fa benn code pour pour ñu vérifier ndax yaa ko moom léegi demal nga jël code boobu nga ñëw dugal ko fii su fekkoon nag léegi dañoo dem ci boîte bi jotuñu. pour ñu waxal la comme ñu ngi si page bi moo tax dem ci boîte bi gisuñu code bi da ngay fii ne pour mu renvoyer la li nga xamante ni moom mooy beneen code parce que dem nga ci boîte Gmail Pape Mor Lo 1 bii gisoo code pour ñëw fi nga cliquer renvoyer soo cliquer renvoyer dina la envoyer waat beneen code bu bees comprendre nag su fekkee par exemple da nga dugal ba pare ba mu ne la envoyer code mais nga doon nga gis ni ah man ko defuma Pape Mor Lo 1 Pape Mor laa def comprendre xam loolu erreur la. da ngay ñëw fii nga cliquer supprimer confirmer mu deñ que du tàppewaat adresse email bi nga jot ka transfert dugalaat adresse email bi comprendre nga voilà. léegi nag comme amul erreur dañoo war a valider dañuy dem jëli li nga xam mooy code bi ñu dem ci boîte Gmail yi nga Pape Mor Lo ji nga bu ñu xoolee defal nañu l'équipe Gmail waa Gmail ñoo ñu envoyé ji nga benn emailu confirmation comprendre nga léegi ñu cliquer message bi suñ cliquer message am na ñaari option pour valider option bu njëkk mooy cliquer lien bii que comme comme ba dafay bëgg ndax ñoo moom email bi. lien bi su fekkee moom moo email mënoo dugg ci boîte email bi cliquer ko moo tax boo ko cliquer day jàpp ni confirmer nga soo jëlee code bi tamit mooy code bi mu envoyé mi ngi nii bindal nañu adresse email bi demandé na ñu transférer automatiquement ay message am ci sama email léegi code bi mooy confirmation ma copier ko voilà wala nga jàpp ko dem tàppe ko mais copier moo gën a wóor pour am erreur après ñu demaat ubbi boîte bi nga xam ne moom la war a confirmer ñu ñëw fii ñu bind code bi wala ñu tàppe ko ma koy coller directement ñu collé ko dara bokk directement comme copier nañ ko fee moo gën a wóor mais comme collé nañ ko lan la ñuy def dañuy def fii valider waaw waaw valider nañ ko di nga jàll na xam ne léegi ñun ñoo moom eh, email bi léegi lan la ñuy defal mun na joxal ñu léegi désactiver le transfert maanaam transfert bi fi mu nekk nii maanaam activer guñ ko parce que ñun ñoom dugal nañ email pour ñu ñu si transférer mais dañ ko war a activer comprendre nga email baa ngi nii su fekkoon email yu bëri nga dugal yoo xam ne dañ ci war transférer boo defee nii dañuy feeñ fii comprendre nga email bi day feeñ beneen feeñ benn message bu dugg fii ci email yi nga def fii yëpp la koy envoyé soo amee bi email boo ci bëgg dindi comme bii ji nga supprimer par mot bu ñu ko bëggee dindi mën nañ cliquer fii supprimer confirmer mu deñ ñu dugal beneen voilà léegi nag réglage bu ndaw bi am fii mooy lan mooy fii nii la cocé désactivé parce que ba léegi bëggul envoyé te ñun confirmer wuñ ko dañuy ñëw fii ñu cliquer fii cocé fii transfert gis nga transférer une copie des messages reçus à papemorlo1 arobase gmail point en cours d'utilisation maanaam mi ngi mi ngi dox léegi léegi ñu ñëw si deuxième case bi lan la ñu da bindal fii mu ne ñu e conserver la copie originale Gmail dans la boîte de réception léegi boo cliquer fii muy dul ci ay option lan lañ wax ci lu njëkk di danañu dane email yi may jot fii ci boite bii kat dama koy transférer ci compte bi nga xam ne mooy pam 1 arobase gmail point com laa koy transférer waane ndax da ngaa bëgg tamit ma email bi dugg fii ba pare nekk fi ma jël benn copie envoyé ko fee wala da ngaa bëgg email bi dugg ñu envoyé ko fee bañ ko def copie loolu la ñuy leeral fii mu defal ñu fii conserver la copie originale maanaam toujours original bi da nekk fii mais mu envoyé ñu copie rek ba ñu xam ne jot nañ fi email wala ñu def marqué la copie Gmail comme lui maanaam bu ñu envoyé ñu def ni mel ni bi mu ñu envoyé fii mu def ni liir nañ ko ba pare. wala archiver la copie originale Gmail wala mu def mu def ko def ko archive mel nii maanaam euh, xool nañ ko ba archiver ko waaw wala mu defal ñu supprimer la coppi originale Gmail maanaam heure bu jotee fi message suñu ko transféré ci Pape Mor Lo arobase gmail point com ba pare mu supprimer ko ci boîte bi déedéet yooyu bëgguma ko dama bëgg su ma envoyé Gmail ba pare Gmail bi tam mu téye ko fii en même temps moo gën a wóor pour mesure de sécurité voilà par défaut duñ changé fii dañ leen li fi nekk mais doo ko changé nga bàyyi dina dinañu mi ngi nii dinañu transférer benn copie message reçu yi nga ci boîte bii nii dinañu transférer message yi ci sama compte bii di Pape Mor Lo 1 arobase gmail point ba pare dina conserver copie bi fii kon c'est bon léegi lan la ñuy def ñu ñëw ci suuf boo xoolee defal nañu fii enregistrer les modifications enregistrer les modifications ñu cliquer fii enregistrer les modifications nga xaar page bi chargé chargé na di nga ñëwal la ci boîte Gmail léegi enregistré na modification yi voilà nii mooy ni nga xamante ni noonu ngay duggee ci benn boîte Gmail configurer ko pour message bu fi ñëw rek mu trans copier transférer la ko ci sa beneen compte léegi message bu ñu envoyé ci boîte bi waa Gmail dinañ ma envoyé benn copie ci Pape Mor Lo comme Pape moom laay connecté chaque jour compte bi ma bëgg ko déconnecté ci ordinateur bi pour mesure sécurité waaye bëgguma fi raté benn email léegi du ma fi raté benn email email bu fi dugg dinaa am copie nii mooy ni nga xam noonu la ñuy transférer ay Gmail jële ko ci benn compte di ko yóbbu ci beneen compte boo xam ne connecté connecté boo ci nga connecté compte bi nga connecté wul dara bañ la faa ëmb ci Gmail yi parce que message Gmail dafa am solo lépp lu lay informé ci ay YouTube ak yooyu dañ la koy envoyé bu ñu jël dañ lay envoyé Gmail moo tax boo nekkee youtubeur sa boîte Gmail da nga ko war a di consulter foo toll léegi nag boo ci déconnecté xam dootoo ko mun consulter nii ngay def pour dara du la fi ëmb voilà je am na beneen affaire bu am solo bu am fii mais xam naa loolu dafay gën a concerné ñoom dañuy def peut-être business am na tam ñu deful business ñu muy concerné muy répondeur automatique ci Gmail xam naa nag waaw bëgguñu mu nekk ko kuuru Gmail tamit quoi voilà <laughs> voilà mais xëy na dinañ si ñëw li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy euh, réponse automatique voilà boo envoyé message maanaam waa Gmail mën la defal transfert automatique message bi mu dem ñu ñu ñu répondre la automatiquement yow nga répondre ki nga xamante ni moo envoyé message voilà boo ñëwee dugg ci accueil bi rek bi ñu cliqué ji nga para kii roue bi cliqué paramètre ñëw fii par défaut xam nga sànq ñi ngi ñëwoon transfert bii ñoo ngi général xam lañ nekk lañ ñoo ngi général général ngay nekk li da wàcc ci suuf rek wàccee suuf fii ngay configurer li nga xam mooy réponse automatique réponse automatique mooy lan dañ ko expliquer nii rek vaguement mais duñ ci ñëw peut bu amee ñum intéressé ñu bëri ñu bind ko ci commentaire yi dinañ ñëw def ci vidéo leeral ko wax en tant que youtubeur kese ak yan option nga ko mën a utiliser en tant que kuy def business kuy jaay kuy joxe adresse email am et cetera yooyu de mën nañ ko leeral mais si kaw mu nekk dafa nit ñu ko soxla quoi voilà bu ñu def vidéo pour def ko nii vidéo bi ñu def nii dafa am ñu ko bind ci commentaire lu bari bu ko defee dañu xam ne intéressé na ñu bari ñu def da ngay da ngay fi benn réponse boo xam ne képp ku la envoyé email yow nga bu la neexee tam nga nga définir tibu email yi nga bëgg waa Gmail di la si tontul ak yi nga bëggul ñu tontu si yow mun nga ko définir mais ku la envoyé email rek automatiquement su moom su la envoyé email en retour dina jot yow sa dina jot sa message yow nga tontu ko comme répondeur automatique ci WhatsApp nga nga répondre ko automatiquement réponse boobu nag mun nga fi def sa lien chaîne YouTube mun nga fi def sa numéro téléphone et cetera exemple bu ndaw bu ñu si joxe mooy tey mu nekk nii dama waroon voyage def un mois un mois bi fi may voyager du ma am connexion internet wala waru wala même bu ma koy am parce que la ma fay liggéey moo ma tënk wala daal wala wala wala comprendre wala ma nekk fi Sénégal may dem village boo xamante ni village boo su ma demee du ma am connexion te war naa faa def weer te bëgg naa maanaam mais sama téléphone a ngi dox mais ma connexion comprendre exemple la ci cas yu bari ñu ko mën a utiliser benn exemple laa joxe bu simple. léegi damay créer fii réponse automatique réponse automatique ma bind si ah man kat dama nekk en voyage soo ma envoyé email bii gis répondre ma la woo ma ci numéro téléphone bii ma bind loolu ci case bi comprendre nga léegi def objet programme yëpp comprendre dugal ko. léegi képp ko ma envoyé email doon xaar ma répondre léegi léegi rek nga yow automatiquement di nga jot réponse boobu waa email ne la ah réponse bii la la Pambour bàyyi nga liir ma wax la fi ah man kat damaa nekk voyage du duma la mën a tontu léegi léegi fii ak weer laay ñëw su fekkee li daa urgent mënul xaar woo ma ci numéro bi kooku automatiquement day xam ni kon du am tontu email tey mu jël numéro bi woo la loolu rek loolu lu basique quoi njariñ bu muy jariñ am na nag ci yeneen côté business commercial lu ñu ko mën a utiliser et cetera et cetera voilà mais yooyu comme euh, ni mu leen ko waxee fekkee am na ñu mu intéressé bu ñu ciy defee ay bu ñu waxee ci commentaire yi dinañ ñëw euh, def ci li nga xam moom mooy ay vidéo incha allah rabbi nii mooy li nga xamante ni noonu ngay transférer li nga xamante ni moom mooy euh, adresse Gmail jële benn Gmail message yi nga fay am yóbbu mu ne koy copier di la ko envoyé ci beneen Gmail bi nga am ci nga am accès waaw lu simple la yomb na ñëpp mën nañ ko def voilà. ñu ngi conseil nag ñi nga xam ne comme dañoo am seen compte principal ñu déconnecté ko comme Cheikh Cissé li mu doon expliqué compte principal am da koo déconnecté ci ordinateur ba créé beneen compte bi mu créé moom mu nekk fa mais problème am mooy email yi mu dul jot te moom la bëgg di jot léegi Cheikh Cissé nii ngay def pour jot say email kon ñu ngi leen jox rendez-vous ba vidéo bii di ñëw incha allah rabbi jërë ngeen jëf.